gannaaw sawaay mooy ilimaan bu nee ca bopp ba du kiimaan maamum na topp ilimaan wagadu wuuteeg bopp yoon bi mag moom mu def sëriñ bi mag sëriñ bi def ko rakk sëriñ bi def ko rak ñuy sottante xalaat ñuy sottante xalaat muy def bu màggal gi jotee muy def bu màggal gi jotee ma kaay yóbbul ma teraanga ji mu ne ko xalifa kaay yóbbul ma teraanga ji ko yóbbu mu daal koy indi ba daaw ba daaw bi muy làqu bi muy làqu fekk na màggal gi des tuuti fekk na màggal gi des ay fan. waaye fekkoon na mu programme waaye nag fekkoon na nag sëñ Abdou programme ko. ñu indi ko. ñu indi ko. ren bi mu jotee. ren bi mu jotee. ab Babacar doomam. Babacar doomam. ànd ak Moustapha. ànd ak Moustapha rakam. ak seen papa. ak seen papa. Pape Malick. Pape Malick si. ni ko kaay yóbbu teraanga. ni ko kaay nag yóbbu teraanga ci sëñ Basirou. nañ ko yóbbu nañ ko daan yóbbu. nañ ko yóbbu nañ ko daan yóbbu. ma indi ko. mu indi ko. teg ko ci loxoom. teg ko ci loxoom. ñoom na ñu koy sant. neena na mi ngi koy ñu koy sant. di ko gërëm. di ko gërëm. di bokk ak moom xew wi. di bokk ak moom xew wi. allah te incha allah bu ëllëgee bu ëllëgee doomam dana ñëw doomam dana ñëw ànd ak délégation ànd ak délégation ba mu daan àndal ñu taxaw nañ daan taxawee ñu taxaw nañ daan taxawee loolu daal ci gàttal kon daal loolu ci gàttal loolu lañ ci doon sànni loolu lañ ci doon sànni Mbacke mbooloo mi sëñ Khalifa yaa ngi ñi nga àndal sëñ bi nee na mi ngi leen di nuyu maa ngi lay delloo am nuyoo yow Serigne Khalifa. ne mi ngi lay delloo am nuyoo yow Serigne Khalifa. ak mboolem mbokk yu tedd yi nga àndal bàyyi ko ca dëkk bu tedd ba di Tiwaawoon. ak mboolem mbokk yu tedd yi nga àndal bàyyi ko ca dëkk bu tedd bay Tiwaawoon. ne Tiwaawan nag di këram ne nga ñëw fi nag. te daa fi ñëw te daa fi ñëw. ci ndigalal suñu xarit bu baax ba. ne ci ndigalal xaritam bu baax ba. di suñu mag di magam ju baax ja. di suñu soppe di soppeem. di suñu lépp di léppam. di sëñ Abdou Aziz Al Amin. muy koo xam ne mënuñu su ko fàtte. ne kii sëriñ bi dana ko di wax de ne kenn mënut a fàtte sëriñ Abdou. kenn mënut a fàtte jëfam. ne kenn mënut a fàtte jëfam. lii sax ci la bokk. ne lii sax ci la bokk. kon sama diggam. ne kon mu rafetal diggam moom. ne njaboot gi mu bàyyi ginnaaw itam buñ jàppoon benn jàpp nañ ko fukk ne moom itam ne wëllëre ginnaaw lay féete moo tax ñu jàpp ko nii mu ko jàppee kon mu ngi lay yóbbantim nuyoo te ka nga nekk ca bopp njaboot ba di xalif général di Tijaan sëñ Babacar si Mansour di ko ñaanal moom sunu borom dëgëral ko te mottali mission ba mu yeggale naa li magam yu tedd yi bi mu fa wutu woon di nuyu rakkam sëñ Pape Malick Sy mi nga xam ni moom it ku ko gis rek sa xel dem sëñ Abdou Aziz Alamine mu seqoon ak moom wëllëre di gëm ak sëñ Abdou Khadir sëriñ Cheikh daa ko fi yónni sëñ Abdou Aziz daa na nit ni ci Pape Malick laa a wilaay ak sëñ Abdou Khadir moom itam muy ku baax waaye di beneen nuyoo nag njabootug boppam di sëriñ Babacar Sy moom it muy nit ku baax di koo xam ne jukko gisoon ci baayam yooyu rek la def ndax mi koy topp di sàmm wëlëri wi di ko fonk am ci moom ak def ko waajur def ko waxtandoo nekkoon moom itam wala la ñu amoon ak waajuram ñu ngi koy seeyal ci moom tey rafet njort ci moom te xam ni lu baax rek la am ne waajuram jiyal nag ko di nuyu rakkam yëpp nag muy Serigne Moustapha mi nga xam ni ku sëñ bi amoon ci moom yaakaar la ak rakk yëpp nag di ñaan ngeen yàgg koo def yàgg koo séq te sunu borom nangu ko te sàmm kër yi wasalaamaaleykum jërëjëf jërëjëf